bu nekkee journal bu mu nekkee journal. koo xamante ne axlu lamb moo ñu ñàkk monument bu mag père Balla Gaye Ndour xam nga ko. waaw suñu père la suñu père la suñu papa la suñu xarit la ñu koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana te ñu nit ku baax la woon dëgg neex yàlla. tey ñoo mujjee gisante ak moom. waaw biñ mujjee gisante nag xaw na yàgg tuuti rek xaw na yàgg tuuti. kon durant feebar bi gisante wu leen. waaw gisante nañ benn yoon place am laa ko fekk mais bi ko feebar bi sonalee lool lool noonu gisante waatuñu. mais bi ñu mujjee gisee tamit foofu laa ko fekk boobu maa ngi jógee entraînement jaar palaasam fekk mu toog foofu si budd bi mais chaque jour daal sama wax ak moom ci làmb rek la may conseillé góorgóorlu làmb kenn moomu ko jàppal sa jabar góorgóorlu bul déglu kenn bis bi yàlla saak bu dégg bëccëg suba ngoon bu ma ko gisee nag dafa dëgg neex yàlla mu nekk nit ku baax koo xam ne ñëpp la yéene woon képp koo xam ne ngay mbër rek nga dëkk géej waaye foo mën a dëkk yéene na la jàmm. yéen na la salaam parce que boo mosaan di wax da wax daan la sport bu ngeen di def moo gën a métti ci lu yàlla bind barke alxuraan mais nag yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla moom bu bëggee keneen ku bëgg da ngay ñàkk wax dëgg ndax yàlla bàyyi na fi daal loo xam ne lu rafet la te ñu ngi koy ñaanal tamit li mu fay fekk tamit mu doon lu rafet yàlla na ko Seydina Muhammad teeru ci barke alxuraan karim ci barke salaatul fatiha Père Bale yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla xaree àjjana tey. damay laaj sa combat yàlla na ko yàlla yërëm wax nga actuellement nii nii nii nii ci ci ci dëj la ñu nekk bisu yàlla dogalee bañ gisantaat wala ñu daje si kàttanu yàlla dañuy wax si làmb su neexee yàlla loolu man maa la ko ñaan incha allah. kon ma ñëw ñu jàkkaarloo après. après ñu jàkkaarloo incha allah. ma ca Père ngi ni. doomu yaay paa bu doomu dund. waaw loolu moom dafa leer. Père Balla xamal ko. waaw mu nekk suñu papa nekk suñu papa biir géej waaye papa bu gën suñu papa boo xamante ne fu mu la fekk rek. dalay lay conseil gën laa gëmloo sa bopp bëri na fi tey jii mbër yu ndaw yu fi nekk Baye Balla da laa gëmloo sa bopp ba nga mën a xam li nga doon yaay kan moo tax demam bi naqarlu nañ ko mais tamit kullu nafsin saay xatin mawti bakkan bu ñam dund di nga ñam dee dañ koy ñaanal fa mu nekk yàlla na suuf si koom yàlla na ko Seydina Muhammad teeru yàlla na ko yàlla na ko waaw yàlla na ko malaaka yërmande ñëpp waaw teeru xam nga metti na tiis na naqarlu nañ ko mais comme nu ma la ko waxee rek xëy na tamit gën a bees la mais gën a mekk laa amul dañ koy ñaanal suuf woyof si kawam bu baax a baax a baax a baax. lii rek euh, day wane rek ñun mbër on est très solidaire ah lenn lu dal ci kenn rek dal na ci ñëpp. Mhm. Père Balla Gaye nag suñu papa la woon. gisoon nag euh, jéego yu ma ci làmb moo fi a innové. Mhm. Euh, école de lutte xam nga ba pare réussir na ko ah il a créé beaucoup de ñu koy ñaanal yàlla rek foofu mu mu jëm yàlla na ko gënal fii nga xam ne moo fi jógee taaliba Seydina Limaamu Laay la jullit la woon yàlla ko yàlla yërëm di ànd nag euh, teewal fii association national des lutteurs du Sénégal ànd ak suma ay xarit ànd ak suma bureau bi yëpp boo gisee gars yëpp ñu ngi ne ginnaaw ñëpp sànq bi léegi ñu ngi fi xaar pour nag ñu jëbal euh, jëbbal suñu njaal njabootu Balla Gaye numéro un loolu moo waroon loolu moo waroon suñu suñu suñu teewaay fii. jërëjëf ñu ngi ziar jaajëf. jëlee ko fi képp kuy mbokk ak képp kuy dëkkandoo da nga war a ñëw xam nañ suñu paa man paa bi mu koy xam lu ndaw laa may toog ci mu kaay usa combat Batika Lac de Guiers ba léegi ñuy déggante ay mbërëm ay doomam ay rakam géejawaay parcelle Pikine yëpp di benn te Sénégal la moo tax tey ñëpp teewee fi te di ko ñaanal wér yàlla may ko ajjanay ajjanay ajjanay suuf sedd si kawam ak bépp dooma ak bépp ku fi nekk parce que lii dafa rafet ñun lii lañ am Sénégal lii lañ am muy julit muy chrétien jàmm santé ñaanalante làmb du ay affaire rek Pikine Parcelles Guédiawaye doomu aadama moo jiitu làmb te yàlla lu mu gën a fonk mooy doomu aadama kon nit bu amee tiis ak naqar dañuy ñëw looloo ñu waral ñu teew looloo ñu fi indi ban jàngat la si ak lu làmb war a mbër yi ñoom lii war na leen yee parce que mbër yi ñoom ñëpp ay frère lañ ñoom ñëpp ay frère lañ benn bool la mbëru Pikine beeg mbëru Géejawaay beeg Caaroy beeg jàmm gën fépp mbër si nekk Sénégal image yu mbër dafa war a rafet tey fii lañ war a xam ne mu image yu mbër dafa war a parce que tey boo xoolee seen papa tey moom moo doon ànd ak ñoom muy bëre ñu koy seetaan ñun bu ñuy booy ñoom ñu jug nekk ay mag dem bay bëre paa bi di leen taxaw tey paa bi yàlla jëlee ko fi ñoom ñëpp ñu ñëw témoigné ko seedal ko kon ñoom mbëri war nañ xam ne làmb du ñu ay noon làmb ñoom ñooy mayante xaalis seen biir ñoom ñooy mayante xaalis seen biir man soo gisee ma naan sax axlu ah làmb dama koy bàyyi parce que dafa complexé parce que mbëri ñoom ñoo war a yeew nekk ay porteur de voix mbër parce que boo nekkee sportif yow dañ la war a xool xale yu ndaw yi jëpp am jàngat bu naaj si yow mais mbër waroo nekk référence boo xam ne da ngay xaajale tey parcelle laa dëkk xam naa Modou Lo waruma xam Fils de Balla waruma xam gay war Gaye waruma xam Lac de Guiers Guédiawaye laa dëkk waruma xam Ama Baldé su ma dëkkee Pikine ma xam ñoom Siteu loolu du loolu du sport sport day boole ay race di boole ay nationalité di boole ay dëkk bu ko defee xel yeeg xol yi yëpp doon benn làmb mbër yi war nañ ci yeewu tey man du ma mbër mais mbër laa parce que si milieu mbër dama si yàgg mais damay lancer mbër yi ne ñuy soppante ay xalaat di seetan di waxtaanante ñoom ñooy maye xaalis seen biir violence amatul na bi dafa jeex ba pare àdduna dafa jeex xoolal papa ji xoolal tey li mu am ku nekk bug na am lool xolam mu rafet gëm yàlla liggéeyal yont bi moo ko may lii te liggéeyal yont bi boo koy def rek da ngay am lu bari. lan nga mos a moom loo xamante ne ni wala mi nantiwu leen paa bi miinante nañ bu baax bi may booy laa la wax man ma koy seetaan làmb sans làmb sax si boxe paa bi ñëpp xamee nañ ko si boxe champion d'Afrique man ci taan bi laa juddoo même bu ma juddoowul si taan bi da ngay am père baala Gaye mu ñëw làmb di bëre bëre naa ku ne man ñëw naa ànd ak samay mag mbër bëreew ñu ak ay moromam de bu ñuy conseillé ñëw ba sama mbër yi ma àndal mu leen di conseillé te bokk ñu woon sax écrit mais loolu dafa rafet parce que tey lu mu koy seedeel mooy dafa yàgg boole defar na ay champion boo xoolee tey si Balla Gaye ak ay rakam paa bee tax ba jël turam moom <laughs> Balla Gaye tuddee ko Balla Gaye kon paa bi lu mu liggéey yàlla da fay lu mu liggéey te da ko fay fii da koy fay fu ñu jëm kere yow mal xëy am parce que xoolal tey lii rek lii rek lii rek rafet na àjjanam lii rek sacrement jour dëj bi lii nekkul ku nekk koy am de yàlla mooy xool ay doomu aadama tànn ay nitam. bëggal leen boppam tey nag yàlla da ko si ñu mu bëgg te dañ koy ñaanal yàlla yóbbu ko àjjana yi kawe boole ko si ñi nga xam ne ñooy fekk ji yonent bi yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla jàppale fu mu ne suuf sedd si kawam yàlla na ko yàlla yërëm lii nag mooy li ma wax rek war nañ yeewu mbari nañ yeewu lii duñu duñu ay noon ay frère lañ senegal ñun ñëpp benn lañ soo bësee sama loxo dam koy yëg su ma bësee loxo keneen da ko yëg kon ñun ñëpp ay sénégalais lañ kenn waruñu tuñu boole lu ñuy boole ak lu ñuy xaajaloo dañ ko war a jël génnee ko fi parce que tey boo xoolee murit bi tijaan bi laayeen bi chrétien beeg ñëpp ñun benn lañ benn say ñoo bokk bool Baye Mandione Baye Mandione kenn mënu ko tudd tudd tudd làmb taalibe maam limaam maa lay waaw sëy maa lay ziar wér waaye ndax am so lépp jàmm ñu sant yàlla baax a baax sant yàlla baax a baax monument làmb génn àdduna naqar ak tiis dara ahlu làmb Père Balla xamal nga waaw Père Balla wax dëgg yàlla suñu papa la ñu ñëpp waaw vraiment maa ngi koy jaale ahlu làmb yëpp yëpp yëpp yëpp yàlla nag yàlla sama borom teroor ma dem dëkk sa àjjana kay ci barke Seydina Mohamed non bu man bu dajeeg man daf may nuyoo pare taf ma ci dënnaam doog a wax ak man loolu moom frappé su ma diggante ak moom yàlla nag yàlla sama borom yaa ngi dégg teeru ci àjjana kay yàlla Mohamed alayhi salaam mi mu gëmoo dee bëggam ko tey waaw bismillahi rahmaani rahim ñoo ma sant yàlla julli si yonente bi waaw maa lay nuyu bu baax a baax di nuyu sa caméraman Père Balla Gaye xam nga koy jaale Sénégal avant tout di ko jaale monde lamb di ko jaale suñu xarit suñu mag Youssou Ndour di ko jaale suñu grand roi des arènes muy Balla Gaye 2 ko gaale Guédiawaye di ko jaale école yi Balla suñu papa bu jege la woon waaw ndax daf ñoo yemale woon kon doomam amaana sax dañ naan ñun la gën a bëgg ko doomam kon metti na daal waaw suñu papa la man sama papa la bu may bari daf may ñaanal waaw ndax man ak Youssou bokk nañu ay journée journée waaw suñu papa bu jege woon la mais tamit yàlla bu soxlaa moom xama soxla da ngay ñaax dañ koy ñaanal fi mu jugee fi mu jugee jëm gënal ko xam nga di ko ñaanal waaw àjjana waaw ndax moom xam naa ne moom incha allah dem na ajana ba pare waaw mais dañuy ñaan suñu borom rek waaw yàlla defal ko jaamu daal. ñoom baas yàqul sër moo war a daj a 2 Giga xam nga 2 Giga mu doxule kii moo war a daj rek gis naa ko rob naa ko intéresse mais macha allah nee ma am nga problème nag. waaw mais dara na liggéey rek. non non lu mu liggéey doyul. ñun ñu ngi suñu rukk daal. 2SYGA lu mu liggéey doyul ñun ragaluñ loolu ñun ñu ngi suñu rukk di liggéey waaw dañ bëgg mu liggéey lu ne ter. nee na moo tey nga mujjee dugg parcelle dootoo fa duggati. incha allah parcelle dina man teguma soom bët si 2SYGA. si Modou Lo. ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi ma fekkee ko fi. olof olof laa la wax de damay ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi ma fekkee ko fi. olof yooyu xaw ma ko. waaw dinaa la ko wax ñëwagul. da nga ñaan ko fi. ma fekkee ko fi. Modou Lo waaw. li ngay wax nii ah, Modou Lo laa soxla parcelle mais du deux Giga damay ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi ma fekkee ko fi. moom dama man teguma sax sama bët si kooku dañuy dañ yàlla moo ñu boole day jaar. njool la de. waaw ndaanaan la ndaanaan la moo tax ma jël ko man musuma bëre combat bu yomb barki alxuraanu karim xam tey dëj la sax moroom ñuy wax mais yàlla baax na daal na liggéey rek. waaw na liggéey rek xam ne lum liggéey doyul tamit kon rendez-vous yow jeex na amul ragaluñu loolu ñu ngi bëggee waaw gis nga di bëggee doom day. relation maa la ah. waaw euh, di euh, lu rek teewaay bi ak témoignage yi ma fi gis ndax Balla suñu mag la woon suñu xarit la woon donte yor na école de lutte ma yor école de lutte mais bëri na luñ daan euh, jàkkoonte man ak moom ñuy waxtaan. yéen a bokkoon fédération. d'ailleurs non moom moo ma mag foofu moom moo ma mag mais suma mag la woon suma xarit la woon mais ci école de lutte bi mu yor sax daan nañ ci waxtaan. ndax ñoom Balla Gaye bi ñuy lukkee ko euh, muy ñëw sama école mu ñëw sama mbapat daf ma daan woo ne ma Balla ngi ñëw les ak Baye ma Ndiaye mais nang leen encadré rek ba buñ fa histoire nañ bëree rek ñibbi kon moo la yoon moom yàgg naa sonn ci xale yi euh, ànd ak ñoom bañ doon champion moo tax léeg-léeg ma dégg ñu ne Balla Gaye di ko gërëm naan lim def fii mais lim def rek oh, la war a def ndax Balla Gaye ñoom Youssou Ndour doomu deret la ñu mais Balla Gaye doomu xol la lu ne la daj ci moom ànd doon champion tàkkusaan gu jot yow sa papa day julli ca kër ga moom mujj li ñëw nekk ak yéen ci école bi di ànd ak yéen ba ngeen doon ay champion kon yooyu loo leen defal rek war nga leen ko defal ku teewul nag dañ koy gërëm euh, di ko jaale njabootam euh, di ñaan rek yàlla xarakol jànnam ndax it moom bëri na ba làmbam jeex mu créé école de lutte ànd ak xale yi encadré leen ñi des ci école bi nag monument bi mu créé am école de lutte ci moment bu jafe nañ fexe téye ko ba biisu boobu du réer waaw loolu daal la ñuy ñaanal ñi nga xam ne ñoo ci des ne ci ginnaawam dem ci ñëpp wala dem est-ce que du sooxal dara ci équipe bi mooy li ma la wax conseil leen di jox maanaam buñ buñ mujjee poussé ba mu réer bijou la boo xamante ne ni moment bi mu feebaree gis nañ beneen relève ñëw téye ko na ñooñ continuer ndax écurie Dakar ñoo njëkk am école de lutte récépissé école de lutte mais Balla Gaye moo ko fésal waaw moom école de lutte moom moo ko fésal ndax booba dañ ne école de lutte mënul am ci moom la fésee te xalaat naa ne ak ñoom jaw ak ñi ne ci ginaaw duñ bàyyi école école bi di réer te it ñu nit lu ñu wax dinañ xam ndax suñu xarit la woon dañuy bëgg mu doon continuité fii si ñu ngi lay gërëm di la sant taxawaay bi am na solo jërëjëf